Euh, mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues, honorables invités, mes chers camarades, élèves et étudiants, euh, je vous dis un grand bonjour à tous. Aujourd'hui, euh, je parle avec un immense plaisir et honneur devant tout toute la jeunesse du village de Malikounda Ngogom, devant nos parents, devant nos sœurs invités, euh, à savoir monsieur Demba Faye, M. Mamadou Dia, monsieur Mamadou Fall, M. Abdou Faye, M. Adam Hassen et leur délégation. Par ma voix, j'aimerais d'abord expliquer le sigle Ayman, ce que cela signifie. Euh, C'est l'amicale des élèves et étudiants de Malikounda Ngogom. Donc une amicale qui est une structure qui regroupe l'ensemble des élèves et étudiants de malikunda Ngogom. Mais une chose est sûre, sachez que notre destin à l'université est presque terminé. Maintenant, on fait appel à l'ensemble des élèves, que ça soit le cycle primaire, moyen comme secondaire, de venir rejoindre nos activités. Parce que L'environnement universitaire, comme son nom l'indique, n'est pas du tout facile. C'est très difficile. On vit dans la calvaire, dans la précarité, dans des conditions extrêmement difficiles. Et vous ne pouvez pas comprendre. Une fois être là-bas, vous saurez que tout ce qu'on a dit, on l'a vécu là Donc, par cet aspect-là, je vous lance un appel et solennellement de venir rejoindre l'amicale. Je ne peux pas j'ai pas l'habitude plutôt d'écrire un discours parce que je suppose quand on maîtrise ce qu'on doit dire ce n'est pas nécessaire d'écrire quelque chose donc par cette occasion également euh, comme je l'ai dit tantôt je remercie vivement nos parents qui se sont sacrifiés corps et âme pour venir nous soutenir pour la réussite de cet événement comptez également pour nos remerciements monsieur Abdou Faye, qui n'a cessé jamais, en tout cas, de lutter pour la cause estudiantine, notamment à Malikoudangogom, où il a œuvré pour l'amicale et il a fait tout pour que l'amicale soit dans de très bonnes conditions. Bien entendu, il a fait avec tous ses moyens du bord pour satisfaire, en tout cas, nos besoins. Effectivement, je ne peux pas aussi écouter mon discours sans autant citer M. Moustapha Sen, qui n'a aménagé aucun effort. Aucun effort, ça signifie il nous a soutenus non seulement à l'université, financièrement, moralement, sociologiquement, mais également socialement. Donc, il mérite d'être remercié. Monsieur Adam Hassen, vous savez que on ne les pas décerné ces lettres pour de l'argent, mais pour le remercier. Parce qu'ils ont participé. Monsieur Babacar Tchandoum, pareil. Monsieur Mor Tchandoum, qui ni élève, ni étudiant, qui un jeune qui œuvre pour l'ASC, mais qui soutient beaucoup l'amicale. Donc, quand on a besoin quelque son téléphone, il répond. Quel que soit l'appel, il répond. Et quel que soit le besoin, il est toujours présent pour satisfaire ça. Donc, on ne peut pas véritablement écouter nos discours sans autant remercier ces autorités. Mais également, M. Babacar Faye. M. Babacar Faye, il nous a soutenus. La première année que nous peinons à avoir une chambre, C'est lui-même qui a déboursé de l'argent. C'est ça, dans sa propre poste pour nous soutenir. Et parallèlement, quand je dis Babacar Faye, M. Demba Faye en fait partie. Parce qu'il a mobilisé également tous les moyens du bord pour satisfaire l'étudiant Malikunda, euh, de Malikunda Ngogom. Donc on ne peut pas véritablement, encore une fois, terminer nos discours, notre discours du moins, sans autant remercier ces autorités. Mais je vais essayer de terminer là où j'ai commencé. participer à nos activités. Vous êtes les futurs étudiants de Malikounda Ngogom. Et ici, on a besoin des cadres. Il y en a, mais ce pas encore suffisant. On a besoin des ministres, des présidents de la République, des directeurs, des avocats, des notaires, tous les grands hauts fonctionnaires de l'État doivent sortir ici de Malikounda Ngogom. C'est ça que je crois. C'est ça. Et c'est bien possible, parce que moi j'ai l'habitude de dire que l'impossible n'est pas Mais aujourd'hui, je vais l'emprunter en disant que l'impossible n'est pas euh, Ngogomois. Et c'est sûr que l'impossible n'est pas Ngogomois. Et je sais que nos braves élèves, nos brillants étudiants vont continuer à satisfaire nos parents. Parce que vous savez que, euh, que ce soit le papa, la maman, on ne peut pas lui payer quand on est un enfant, sauf étudier. C'est l'éducation qui est fondamentale. Ils ont tellement financé en nous que qu'est-ce qu'on lui euh, leur doivent en retour. Mais c'est de décrocher des diplômes, c'est de décrocher un boulot pour les soutenir financièrement. Effectivement, et ils seront tellement joyeux euh, pour nous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je remercie également mon équipe, à qui, avec laquelle j'ai travaillé durant, euh, pendant neuf mois presque avec le coronavirus. On n'a pas pu renouveler euh, euh, le bureau, mais le bureau exécutif a fait un travail très remarquable. Et J'avais oublié un nom dont je devais mentionner en premier, qui est le doyen Sen, Moussa. Moussa, c'est un passionné de de, des études. mussa c'est un passionné. On l'appelle ici professeur parce qu'il a toujours soutenu la jeunesse. Toujours. Il est toujours ouvert, disponible. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis en master. Moussa a inculqué un savoir en moi. Donc je ne peux pas parler sans autant lui remercier également. Mais je remercie solennellement l'ensemble des membres actifs comme non actifs de Ayman. Euh, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui devant vous et je vous remercie vivement et merci beaucoup merci beaucoup. waaw ci olof xanaa rek ñu résumé euh, li ñu doon bëgg a wax mooy tey suñu journée bii ñu am amal muy 72 heures amicale élèves étudiants bu Malicounda Ngogom defuñ ko nag dara lu dul. ñu gën a motiver suñuy élèves yi nga xamante ni ñoo fi nekk maanaam suñuy rakk ndax tey defe naa ne booy construire la base defe naa ne ci primaire bi la war a commencer dem ci CM ba dem lycée ba xale bi nga tel ka préparer étude universitaire am donc nag ci loolu noonu ak équipe bi mu àndal yépp ci loolu noonu lañ organiser lii véritablement pour aussi woowaat parents yi ñaax leen ñu xamal leen ni ñun. suñu devoir mooy lan ñu gunge suñuy rakk comme ni ñu gungee woon donc loolu mooy suñu objectif waaye tamit di gën a ñaaxat parents yi ci surtout ci biir kër yi nañu forcer xale yi ñu jàng parce que le niveau aujourd'hui n'est pas véritablement aux normes c'est extraordinaire incroyable donc loolu noonu lañ bëgg mu deñ parce que tey li ñu soxla biir Malicounda Ngogom mooy ay ministre ay président de la république ay directeurs généraux ay avocats ay procureurs bépp pour boo xamante ne rek au fonctionnaire da koy am dañu bëgg mu jóge fii maliku Ngogom te dina fi am incha allah loolu noonu lañu bëgg waa ñuy remercier suñu papa yi nag bu baax a baax a baax a baax fay Bekay Faye toujours saa yu jeunesse bi wootee mu ngi mu ngi mu ngi suñu ginnaaw di ñu soutenir ci ay conseil ci li mu am ci poosam donc ak Bab Paxadi mi nga xamante ne mooy Babacar Faye euh, defe naa ne bu ñuy jëkk am problème mu chambre université dafa génn ay propres moyens accompagné avec monsieur Demba fay ñoom ñu mobiliser moyen jëndal ñu chambre sinon ñun ci bitti lañ doon nekk kon ñooñu dañ leen di remercier dañ leen amel njukkal euh, du ma jeexal tamit te remercier wu ma Abdou Faye mii nga xamante ne sama mag la papam lañ ma tudde parce que moom tamit def na lu ne ci amical bi quoi que l'on diir dire euh, mën naa wax sax ba tey ci condition yi ñu nekk bokku na ci ñi tax ñu nekk ci meilleure condition yi ñu nekk parce que def na fii loo xamante ne vraiment bëgguma toog publiquement di ko wax Moustapha Sène bu ngeen déggee ma tudd ko man de dama dund université tike duma ko manqué Moustapha daf may woo booy gari mu jox ma cinq 5000 wala 2000 demal nga jënd tike te defu ko ak man kese defu ko ak man kese ndax saxaluma lem saxaluma suukar ba mu tax ma kay wax dëgg laay wax te yàlla tax te fii ñu bëri mën nañ kaa seede ñoom Boubacar ñoom ñëpp xam nañ ne Moustapha il est très disponible pour pour les étudiants de Malicounda Ngogom mu taxawuñu ci zahir ak ci baati donc ñuy remercier waat encore une fois autorités yi nga xamante ne ak naaj bu tàng bi ñëw nañ wuyu suñu ndax yombul monsieur Mamadou Fall mi nga xamante ne sama grand frère la dañuy waxtaan ci lu bëri mu may conseil ci lu bëri di ma tax sax may moytu yenn bagage yi nga xamante ne mën naa ci am problème donc kooku dañ ko amel njukkal di ko remercier di remercier monsieur Mamadou Dia qui est toujours ouvert social humble disponible bien vrai que booy xool sax ñu bëri xamuñ ko woon ci Malicounda mais mu ngi doon def ci Malicounda lu am solo te tey dañ ko woo hésité wul benn yoon ak délégation mu ñëw répondre favorablement donc kooku tamit dañ koy remercier bu baax ma soxla tamit ngeen tàccul ma ko ñuy remercier également euh, kii nga xamante ne mooy suñu papa di suñu mbokk muy monsieur Demba Faye mën naa wax sax ku nangoo ko moo ko gënal sax fu mu jóge mën naa wax loolu parce que xam nga lu tax waxuma la amical bi mais ASC bi ñëpp xam nañ ne da cee jàpp kuñ fi nag pour wax aspect politique mais nag c'est juste que nit bu defee lu baax dañ koy wax loolu rek la ndax tey structure bi nga xamante ne dama ko jiite muy ayamaan déjà dafa tere lépp luy politique maanaam kenn mënul politique turu amical bi donc man duma ko def looloo tax ma bëgg rek ngeen comprendre wax jii may wax du waxu politique wax gu jóge ci xol ak dëgg rek moo ko lal donc di remercier également doyen seen muy Moussa comme ni ma ko waxee moom chaque jour il est disponible man mii di wax ak yéen ngi second cycle tey master en fac Moussa bokk na ki ñu participer sama réussite mu jàng dama doon dem ci moom am problème loolu nag la xale yi defatul moo wàcce niveau bi ndax ñoom complexe nañ te dama leen di woo ngeen bàyyi loolu complexe nañ bañ a xam dara dem ci nit wax ko wax ma ndax sax ñu trouver seen lacune te loolu erreur bu fondamentale la bu catastrophique il faut c'est ça il faut laisser ça c'est pas bon lu waay man man damay dem ci ñoo xamante ne maa leen raw ba tey ñu may jàngal ci li nga xamante ne leer na ma ñoo ma ci ëpp xam-xam. donc njàng doy njàng doy que ça soit nga nekk docteur nga nekk master de am na koo xamante ne peut-être mu ngi sixième sax am na li mu xam boo demee si moom mu xamal la ko donc na ngeen di jege seen mag ñi ti li ngeen xamul ñu leen ciy jàppale ndax fii kot comme nu ma ko waxee am na ay cadre de mais nag doyul ñoom Adama seen ñu ngi leen di gërëm di leen di sant jàpp nañ si bu baax a baax a baax a baax pour daal bañ a guddal discours bi vraiment damay remercier rek ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal euh, yàlla ñëpp te lii yal na fi jàmm yàgg te lii yal nañ koy def ay ati ati at ba suñuy rakk tamit jël relève bi jiite amical bi doxal ko comme ni comme ni mu waree donc euh, maa ngi leen di remercier jaa jëf